Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. asalaamualeykum waa Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen yépp comme ni ma koy defee saa su ne ku nekk tuuram ak santam di leen baalu ax yéen ñépp ndax yenn saa ma wax kàddu yoo xam ne ne. waruma koo wax te xam naa ne am na kilifa yu may seetaan mais dama leen di ñaan rek yéen kilifa yi ngeen comprendre ma ndax yenn saa foog ma xaste tuuti defuma ko ngir reewande wala pour leneen mais am na ñoo xam ne ni ay mbaam lañu foog nga jël chicote di leen chicoté Jolof maa ngi leen di nuyu bu Boubacar Fati Ousmane Ndaw yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu <coughs> donc tey maa ñëwaat de. moom ci Macky Sall wax para pare dem ci Françoise Hélène Gaye ndax femme boobu noonu gis naa ne sant rek moo ñu boole waaye lu lu mu teg sant maa ngi bokk bokkuñu dara donc ci affaire mbaam yi laay wax man jot naa samay ma ah, sama gars yi xaw ma ndax jot ngeen seen mbaam yi wala jotul leen seen mbaam yi mais man sama mbaam yaa ngi ne yeew naa ko commencé naa nag di promené newu ci koñ bi ak sama mbaam waa ku wax ma ne sama président moo ma yónnee mbaam mais mbaam yi nag man lu ma jaaxal mais mbaam yi lu tax commencé wuñu ko ci biir palais mbaam yi ci biir palais lañ ko waroon a commencé waaye xam nga lu tax commencé wuñu ko ci biir palais posé leen seen bopp question bi lu tax mbaam yi njëkkewuñu ko ci biir palais ndax Amadou sal moom mbaam bu mu yéeg mu explosé déggu leen ma de. Amadou Sall mbaam bu mu yéeg mbaam bi day exploser moo tax njëkkew ñu ko ci biir palais ñu jël ko commencé ko fay ne Jurbel ndax moom këram moom wax dëgg yàlla macha allah ñoom yàlla moom daleen may daleen may waaye mënoon na koo njëkkee foofu de lii lañu lii mooy wone ni ñi ñaa ngi nit ñi nit ñi nu ñu rawee Macky Sall du ndànk waa Sonko Sonko nu mu rawee Macky Sall du ndànk ay mbaam ay mbaam mbaam xu mbaam xu est-ce que du ñuy lekk mbaam sax soo gisee ñu jël mbaam yi nii jël mbaam yi jiital ko soo moytuwulee mbaam yi moo tax ñu day ñu day nii de ñii est-ce que du mbaam yi nii mbaam la ñuy lekk xam nga am na ñuy lekk mbaam wóor na ma ni dañoo bëgg def élevage mbaam xamuñu nuñ koy defee comme que ñoom ay niti seytaane lañ te mbaam am na luñ koy dàqantal xëy na nag élevage mbaam la ñu bëgg a def xamuñu nuñ koy defee nag. ñu jaaraale ko nii nag ñu ñu ñu ne ñoom xam nga rek dañuy joxe ay mbaam pour les jeunes sama gars yi partagé leen damaa bëgg ngeen partagé waaye partagé leen partagé leen na na ngeen partagé partagé partagé ba ñëpp jot si waa léegi li may wax mooy moom balaa moo joxe mbaam ñun suñu alal dëkk bi nga xam ne ne depuis ci Ablaye Wade lañ ko commencé booy na Ablaye war moo ko tane maanaam société yu nekk ci biir dëkk bi ak entreprise yi yi nga xam ne ne jaay nañu ndey entreprise yi yëpp ak société yi maanaam lu ndaw lu ñu jotoon a am ci biir yow mi ñoo ngi koy jaay léegi ñoom doyaluñu sàcc nañoo sàcc sàcc sàcc sàcc ba amatuñu ñu sàcc léegi ñoom ñoo ngay jaay di jaay di jaay di jaay li ma leen doon wax rek ñoom danoo ñoradi ñii bu ñu ñoroon nekk ay nit ñi nga xam ne ne danoo réglé donc lu ñu doon sàcc noonu yëpp dañ ko waroon a jël investir ko ci biir Sénégal mais ñoom ñuy jël di sàcc di rawale rek yóbbu yóbbu réew mu tubaab moo tax tubaab bi di leen encouragé ndax dañoo xam ne dañoo ñoradi wéruñu seen maay ni duñ ko utiliser donc xaalis bu ñuy jël noonu di ko sàcc waaw Mansour Fall maa ngi leen nuyu Kevin Maysa yéen ñëpp maa ngi leen di ziar Ousmane Tidiane Tidiane Sarr yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu donc ñoom xaalis bu ñuy jël noonu di ko sàcc di ko rawale maanaam bitim réew. ay eh, ci union européenne bi wala États-Unis wala feneen ak feneen xaalis boobu mënoon nañ ko jël bàyyi ko Sénégal investir fa déggu leen ma de li jeunes yi di liggéey euh, mag yi di liggéey femmes yi di liggéey ñëpp di liggéey mais comme que xaalis bi dañ ko nekk di sàcc di ko yóbbu di jënd ay kër maanaam africain moo ñoradi astafurlah yéen na ma ne yàlla yéen na ma yàlla baal du ñëpp nag du ñëpp ndax am na ñu ñor ñoom daal ñoo ngi ci jënd oto oto yoo xam ne luxe la or nu mu tudd ay kër di dajale rek di dem di dajale rek di dem foofu la leen tubaab bi rawee. tubaab bi moom day créer ay entreprise ak ay société yi nga xam ne ne maanaam xaalis bi day gën a jur waaye ñoradi ñàkk xel jël di sàcc jël xaalis bi yóbbu ko bitim réew boo leen amee problème suba bu ñu leen wàccee ñoo ñu jël xaalis bi seen compte yi ko doo leen mënati jot ci xaalis bi yéen du ngeen ñor du ngeen nekk ay nit yéen du ngeen yeewu moo tax tubaab yi bëgguñu leen bay parce que xam nañu ne dañ leen di utiliser ngeen di def yëfi kon seen dëkk ngeen di sàcc di jël rawale si seen dëkk ñoom soo leen paree nag boo leen amee problème ñu jël xaalis boobu nam toog ci ci kawam maanaam société yi ngeen jël noonu jaay ko dégg nga société bi nga xam ne ni day dugal presque deux cent milliards année bi muy gën jël société boobu noonu wala entreprise boobu noonu jaay ko cent milliards pour la loo xam ne ne ñàkkoo ko du sa liggéey danga kaa fekk foofu la du lii la wax si ñàkk xel ak bon yeneen yi bon Macky Sall dafa bon bon na ko sonal ñuy wax société indienne boobu noonu nekk Sénégal comme bu nga xam ne ne léegi sax pour mu jël ay sénégalais ñu liggéey ci biir société bi defu ko day dem ba dëkkam indi fa ay nit ñoom ñu nekk di liggéey les jeunes ñu nekk di chômer maanaam jeunes yi di chômer mu leen di jox ay saretu mbaam di di di di financer projet yooyu yi nga xam ne ne ay saretu mbaam la ñuy jël pour yóbbu ay mbalit ñeneen jógee beneen dëkk ñuy ñëw suñu dëkk di fa liggéey. ñuy fayeeku xaalis bu dul jeex te ñun amuñu dara dara dara yéen ngeen defee ne loolu dëgg la damay laaj ndax loolu dëgg la tontu leen ma yéen ñu ne yaay seytaan ñu jàpp Macky Sall bàyyi ko nii ci dëkk bi rek maanaam lu ndaw lu ñu amoon yëpp jaay na ko léegi mu ngi jaay suuf yi mu ngi mayee ma lan mu ngi mayee lan mu mel ni moom moom baayam moo moo moomoon Sénégal moom lan la moom ci Sénégal damay ragal te balaa 2024 di jot fekk dëkk bi yépp jeexal na ko mais loolu lañu war a loolu lañu war a bañ jaay yu mu nekk di jaay da ko war a dagg lu mu fi jaayati nit ñépp génn laa wax bu mu fi jaayati dara moomul dara Sénégal lépp lu mu nekk di jaay suñu alal la entreprise yu mu nekk di jaay ak société yu mu nekk di jaay moom lan la moom moo ko moom fan la ko fi daf ko fi liggéeyoon fan la ko liggéeyee dama bëgg xam moom lan la fi liggéey aw lan la fi baayam liggéey wala lan la fi maamam liggéeyoon man loolu laa bëgg xam ba moom mu jël suñu alal dëkk bi di ko jaay di ko pasar pasare waaye yéen Macky Sall mooy kan man loolu laay laaj Macky Sall may mooy kan may wax mu ne ay 300 milliards jeunes xaw ma la na lay jox sa yi gàtt nga joxul jeunes yi yow calcul si boppam nga mënul da nga yow da ngaa dugg six da ngaa dugg 8 heures ñu daxal 9 heures ndax calcul mënuloo ko li nga war a yëpp pour ñu jaay la ko lu war a jaay lu war a jar 500 nga jënd ko 1000 francs dégg loo war a jaay deux cent nga jaay ko cent franc waaye yow loolu yow yow yow yow ban façon ngi nit nga yow foo jàngee yow xanaa man mi as man mi ay charette nga tane yow man nga tane di man kese nga tane waaye koo xam ne ne ay calculam day faussé rek yow mënoo calculer loo xam ne mukk day day yóbbu réew mi kanam yow da ngay calculer rek réew mi nga koy gën a suux réew mi di gën a suux waaye yu Macky Sall lan la yow kii dëppa doo bay sénégalais si seen jàmm nga bàyyi leen suñu réew man lu ma lay ñaan léegi jël sa bagage yi nga toxu ak say mbaam ak ak say saret ak say lépp bu ñu jaayal suñu dëkk bi yépp ñun sonko la yaakaar sonko sax bu ñëwee ñu xam nu ñuy def waaye yow yaa ngi rawale li nga am yépp fi nga nekk nii fi nga nekk nii moom sa benn xottu kapp moo toog sa beneen xottu kapp bi toogu ndax fi nga nekk ni sa fit baa ngi tëf tëfi maanaam lépp li nga am yaa ngi koy jël di ko rawale nga defe ne nit ñi xamuñu ko xam nañ ko li ngay def yépp xam nañ ko li ngay nekk di def lépp xam nañ ko mais xam nga lu ma la yéegal lu ëpp tuur gis nga bëggee boo demee bëgg yéen yeneen bëggee yi dinga lor sa bopp xanaa yow xalaatuloo bés boo fi génn bés bu ñu lay suul juróom-ñaari perkaan rek la ñuy jël dugal la ci pax bi xalaatuloo loolu yow xalaatuloo bàkkaar nit ñi li nga nekk di def ñi ñi yëpp nekk di souffrir ñëpp ñi ñaa ngi dee ci hôpital yi ñi ñaa amuñu lu ñuy fajo ñi dëkk maanaam dëkk bi moo ngi noonu di inondé yu problème yu nekk Sénégal kenn waxu la lu mu day nga jël nga jël xaalis man ma génn métti mooy man musuma gis lii non dafa garaaw yéeg ci pouvoir jël sa famille yëpp dugale ñu jàng ñu jàngu ñi li ñu compétent yi ñu compétent wul yëpp nga jël leen suppu kanja maafe doomu daax yëpp nga jël roof leen ndeyam ci biir gouvernement bi yow lii mooy lan lii dafa ëpp Macky Sall lii dafa ëpp nit dangay am rusukaay lan la yow lan doo ñu bàyyil suñu Sénégal nga jàpp sa bagage yi nga am nga nga dem sa yoon waaye ñàkk jom ñàkk jom man mosumaa gis nit ku ñàkk jomee nii ah? ba pare boo xëyee di di jël nit ñi di leen accuser terroriste léegi ñun daal ñun comme que yow léegi dangay nekk di accuser ñi ay terroriste ko wax nga ne ko terroriste léegi xam nga lan la xanaa ñu jënd saabu soodaa di la sàng ba set ah suñu paree nag <laughs> jël xam nga loolu ñu lay maasee de ma ko wax baal naa la waaye Sénégal moom duñu ko abal ñàkk jom ba bëgg dee yow Françoise Hélène Gaye kaay fii Macky Sall xaar ma ne Françoise Hélène Gaye kaay fii waaw Françoise Hélène ngay yow nga ne Sonko lan nga ne Sonko dafa xen ay jabaram donc bu muy dem ci salon de massage bi tàggoowul ay jabaram waaye Françoise Hélène Gaye xaaral ma jàkkaarloo yow xoolal laa sant comme yow xoolal damay ñëw nii jàkkaarloo yow face à face bi laa Sonko bi muy dem ci ci salon de massage bi tàggoowul kan ay jabaram. waaye yow xanaa weñ nga dangay soppaleku kon yow Fatoumata Danso lu mu doon wax dëgg la kon yow dëmm nga xanaa yow dangay soppaleku dangay soppaleku muus ginaar wala yooyu ngay dem kër Sonko di déglu lu may wax ak ay jabaram wala lan yow François Hélène Gueye loolu laa lay laaj nga ne Sonko bi muy dem tàggoowul ay jabaram François Hélène Gueye yaa mën na duul nga def sa bëñ yi tegle ma ne escalier yu ñu teglante may ma ma ñëw tey ma ak yow. waaw François Hélène ngay yow nga ne Sonko comme que daa fen ay ay jabaram donc day mënul yor réew day fen sénégalais yépp donc éthique maanaam nga ne Sonko amul éthique xaw ma lan morale nga ne yow ay leçon de morale ngay joxe yow François Hélène Gaye yow koy jox leçon de morale yéen nga xam ne ne ñëpp leen ñëpp dañ leen tegee boor yéen ay cas perdu ngeen xam nga lu wax cas perdu loolu ngeen yéen ñëpp leen dégagé tegee nee day sax moo leen tane dëggoo ma de. fu day fu ñuy teg day yéen sax duñ leen fa teg yow nga xam ne sa leader kooku nga war a jox leçon de morale ndax kooku hmm, jarul ay waxam jarul kenn di dóor doomam yow Françoise Hélène Gaye nga taxaw nga ne yow Sonko ngay xas Sonko fenkat la Sonko dulkat la yow loolu xaj na sa xat na sa gémmiñ bi nga xam ne ne sa gémmiñ bi ay bëñ sa bëñ yi daa feesal sa gémmiñ bi sax pour nga génnee benn benn moo mooy dañuy bousculer sa gémmiñ bi di rajanteeg sa bëñ yi pour mën a génn nga ne yow Sonko ngay xas yow nga def sa maquillage mel ni golo gu màgget dama jàngaat maquillage ah yow xawma sax li lay wax may wax nga naan Adji Sarr xale bu ndaw yow xanaa Adji Sarr lu mu xam yow xamoo ko yow màgget bu day ni yow li nga xam Adji Sarr mën na laa jàngal man maa la wax loolu moom yow loo xam yow loo xamal Sonko yow loo xam si vie personnelle Sonko loo xam si vie privée Sonko du ne ngeen di def ngeen di duul fen rek nga fi nekkee di day rek di fen rek yow loo xamal Sonko yow loo xam lu Sonko di wax ak ay jabaram yow loo ci xam xanaa Sonko bu naree dem fu mu naree dem dafa war a demander permission je te euh, naka la naka laa la koy waxee sax. dama la koy fàttali Sonko mooy kilifa ci këram donc Sonko am na droit dem fu ko neex te du jox du jox compte rendu jabaram du lii lañuy ñuy waxati du lii la ñuy waxati yow da xam Sonko nu muy dundee ay jabaram da xam nu muy dundee ay jabaram ba nga toog fi ci ci réseaux sociaux yi di naan Sonko tàggoowul jabaram Sonko xale bu ndaw ak Sonko xale bu ndaw xale bu ndaw boobu nag xam nga li mu xam laa wax li aji aji saar xam yow mi xamoo ko yow xamoo ko. Adji Sarr mën na laa jàngal di dem yow Françoise Hélène Gaye nga def sa kanam gi ni bàmmeelu dëmm yow xamoo sax sa bopp yow Sonko du la tontu xam nga lu tax du la tontu doo ma ko laaj ndax Sonko bu gisee sa kanam rek day découragé yow sa kanam day découragé loolu nit ak sa xale yu góor yi nga àndal ñooñu ñooñu nga xam ne ne ay yàmbaar lañu. ay yàmbar ñooy toog di dagasante ci ci ci ci ci réseaux sociaux yooyu di ànd ak yow ñoom ñu ay yàmbar la ñu noonu duñ góoru yàlla góoru yàlla ñu ngi nekk ci leneen di wax ci yeneen waaye góor góoru rambal rambale ay góolu rambal rambale ñooy ànd ak saytaan yi mel ni yow yow Françoise Hélène Gaye may wax boo leen waxee ngeen jël doomu Sonko ngeen dugal fa doomu Sonko lan la jotee ak ñun suñuy tudd ay ñoom Amadou Sall parce que Amadou Sall man Amadou Sall kese lay tudd ci doomu Macky Sall parce que xam nga lan la moom mooy génnee boppam di dem ci ay at di gunge yaayam ak di gunge papam moo tax may wax Amadou Sall yow foo gisee Sonko génnee doomam ba ngeen jàpp doomu Sonko bi jël ko ni sax mat doomu jàmbur bi xale bu ndaw ngeen jàpp ko boole nga koy ni comparé ak Adji Sarr mën na nekk gëlee Adji Sarr xaw ma faru Adji Sarr ak yeneen ak yeneen du fii la bon bon bon bon boo leen di jël doomu Sonko ngeen koy yi ak Adji Sarr te Sonko paal ak mënul nekk léegi man dama leen di laaj kilifa yi nekk ci dëkk bi ñuy takk xale yi ndaw kon amuñu ci droit tontu leen ma wala nga nekk magum jëmm nga nga mag sa jëkkër sa jëkkër am vingt ans yow nga am 40 ans nga see xale bu góor bu ndaw ndax loolu dagano yonent bi de Xadija moo ko magoon te moom moo ngi noonu ñu ñu sëy ñaata kilifa ñoo nekk Sénégal ak ñaata mag ñu takk ay xale yi ndaw waaye bu fekkee ne sonko la loolu mënul ne sonko daal xale bu ndaw mënu commencé ngeen jël wax bi yóbbu ko foo xam ne ne yàggu fa pour taxal doomu jàmbur rek yàq deru doomu jàmbur yow balaa ngi man man lu ma jaaxal yow yaa ngi yor lu ne wëñ Idrissa Seck moo ngi noonu def loo xam ne ne woy boo xam ne du fay ba xaw nga xam ne moom ñépp xam nañ ne xaalis la jël jiital ko yow moomu Françoise Hélène Gaye yaa noonu yow faroo fen yow fara feni nga faroo fen la ko fu xaalis nekk danga doon wax affaire corruption yow corruption moo la mel li nga mel xanaa ku la xamul la déggul yow faroo fen yow xaalis ngay jaamu déggoo ma de yow xaalis ngay jaamu gëmoo dara dangaa gëmul dara may wax nga naan Adji ngay faral ay sonko ngay xas yow xoolal liiwu sonko laa wax déggoo ma de catuweeyu sonko sax moo la gën maanaam xaju sonko yu mu xaju sonko wala muusi sonko wala mbootu sonko yu doxantu këram sax xaw ma na këram am na mbër wala mu ñoo la ñoo la tame yow xam nga lan nga yow doo dara doo tus matta yi sax ñoo la tane ak ak ak ak teeñ yi nekk ci boppu jàmbur yi di lekk deret nit ñi yow li lekk deret nit la yow da nekk di lekk nit fi nga nekk nii munoo wàcc doomu jàmbur bi yow sonko lan la ay sonko coofewul yow xam naa ni nag moom yow kon ci ñu nag sonko nga bokk ndax coofe sonko ñépp a ko wax lii bon la iñaan iñanati yow Françoise Hélène Gueye Françoise yaa yow yaa yow li ma la xam nga lan damay mo damay mesurer samay parole parce que dafa am ay kilifa yi nga xam ne ni ñu ngi may seytaan moo tax am moo tax am na yoo xam ne ne bëgguma ko waaye da xam nga lu ma lay wax bal bu beneen yoo natee balaa ngay ubbi sa gémmiñ di wax affaire Sonko dangay jël seetu xool sa bopp depuis sa catu karaw ba si sa catu way ba pare nga doog a génn nga ne xaaral nga jël photo Sonko teg ko nii ci wet bi nga xool sa bopp nga xool Sonko nga xoolaat sa bopp xool Sonko xool sa bopp xoolaat Sonko boo génnee pour wax di nga xam nag ngay wax lan la te ngeen bàyyi doomu jàmbur bi doomu Sonko bi ngeen jël amee ko sonnal ngeen xale bi da ngeen di traumatiser xale bi bàyyi leen nit ki bàyyi leen doomu Sonko doomu Sonko deful waxul man maay Sonko dama leen di porter plainte ci tuuru doomam bi ngeen di jël di ko wasar wasar ci réseaux sociaux ndax xale bi musul génn bàyyi leen xale bi bàyyi leen doomu jàmbur yéen lii la la nii yéen dëmbay sax ñoo leen tane kenn xamul lii lu mu doon suñu waxee nga jël sa greffage boobu noonu rek jël sa lees bi rek ne ko si sa kanam bi juguj nga mel ni kaña bu ñu solal perruque ah ñu lan nga ko fi kuktaan yi ñu nga jëkki-jëkki xeesal fi ba wextal taxul nga niroo nga nga nekk nit dangaa ñaaw de nature dangaa ñaaw de nature mën daal lii xaw ma lii lu la lii lal ah nga mel ni golo gu màgget nii sa kanam gi mel nii mm, damay xaar ma du ma wax sax ndax sama xam naa sama sama sama waa kër yi ñu ngi may seytaan waaye gis nga bu mën a dëggatee nga wax affaire ko maa lay fekk ba États-Unis yow Françoise Hélène Gaye fi nga nekk noonu laa lay fekk dinaa la woon nu ñuy yaree mag comme que yow dem nga tamit ba say cokk ba jaaw nga ne yow doo changer yaa ngi nekk ci réseaux sociaux yi xale bu jóg saaga la ku jóg xas la te yow nga ne yow doo am jom ngir xaalis def defuñu ko ngir def pour Sénégal séntuwuñu ci dara yàlla xam na ko ak yonent bi waaye yow moom dangaa jaamu xaalis jaamu xaalis jaamu saytaani say affaire saytaani yow doo nekk nit yow Françoise Hélène nga yow lii la la xanaa yow lan la yow amoo ay doom amoo jëkkër man lool laa leen di laaj chaque fois ngir li ngeen di def ni du ngeen xalaati seeni doom yow tey ku jàppoon sa doom yooyu noonu di leen wax lu ñaaw parce que man moom affaire saaga doomu jàmbur moom loolu moom bëgguma cee dugg ah mais boo nekkee yaay comme ni nga koy waxee da ngay xam ni ngay waxee surtout boo nekkee jigéen ki nga xam ne ne ay nit dañ lay suivre di la xool nga doon mag ñun sax xale yi sax garaawul sax. waaye yow mag nekk ay mag seen cokkuy bijjaaw bijjaaw bijjaaw bijjaaw bijjaaw ba zone zone non ba nekk blonde kay ngeen nekk ci réseaux sociaux rek di yàq de jàmbur yi du wax lu bon rek pour lan loolu yow Sonko lan la la def doomu jàmbur bi lan la la def yow loo xamal Sonko ak ay jabaram yàbbi leen waay yow yàbbi ndey waay yow wax naa la ko nag gis nga bu ma bu ma bu ma ñëwaat bu ma dëggatee nga wax affaire Sonko maa lay fekk États-Unis dinaa la ñuus ñuus yi rek la yoo xam ne yow da nga sax waaye su ma la jàppee yow moom duma ma du ma la du ma la wattal dara du ma fi nekk di la saaga dama lay ñuus laa xam nga mosoo gis xale buy buy dem ñuus ma waaye dinaa la nokk ba nga réglé sa périg bu mel ni périku xaw ma nu ma ko xaw ma foo sante gay xaw ma gay ngayeenu ngayeenu fan nga toppee nga ñu mbooro yow Françoise Hélène Gaye lan la sonko nobbu la yow meer bu tas nit bu day ni yow xam naa ni danga bëgg pour sonko xool yow sonko du la xool yow Pastef kenn nobbu la kenn soxlaw la lan la soof bon iñaan iññeeti du lii la ñuy am nga li ngay wax dama lijjanti sa Idrissa Seck bi dama jox ko leçon de morale ak leçon euh, leçon d'éthique Sonko amuloo dara li ngeen koy wax waa te ñuy woote noonu ngóor yuy woote sa ngóoru mbootaay yooyu tamit demal nga jox leen leçon éthique nga ne leen ñu bàyyi tuuru doomu Sonko bu ñuy jël di ko utiliser ngeen bàyyi doomu jàmbur bi yàbbi doomu jàmbur bi lan la su booxul ma leen yéen saytaan yi bon yi yéen a tax ba dëkk bi nu mu mel Sénégal jàmm bu fa naroon am sax du fa am yéen ak ki ngeen àndal waaye na ngeen ànd sax ak seen bopp rek ngeen fi nekkal saytaani rambaaj yi ci xam nga man duma saaga ndey duma wax yooyu noonu ndax ni ma kilifa yi may seetaan waaye bu duloon loolu bu duloon loolu dinaa la wax loo xam ne sa bëñ yi mel ni it ileer nii rato américain sa faf nekk ci réseaux sociaux di ñàkk fayda di duul rek duul ngeen duula duula duula duula duula duul ba feesal seen kër yi ngeen ne du ngeen am jom ci nit day am rusukaay tuuti nit day am rusukaay yàq ngeen tuuru Sénégal fi ngeen dem yëpp yàq ngeen tuuru Sénégal ngir seen doole métti ku leen déglu rek day am envie wocc we we cim soo leen xamoon nu ma leen sibee astafirlaa yan na ma yàlla baal nit du wax nit sax dama ko ma sib waaye yéen su ma mënoon a yegg si États-Unis léegi sa kër dinaa la nokk ba ba ba ba nga day sa tànk yi ñoradi bi nga doon dof bi nga doon luy tooy la sax à dangeen wax ba xamut leen li ngeen di wax dangeen di dem ba ñoradi nit ñi sax du ñu xam lu ñu leen di qualifier loolu laa leen wax dañu ñu jël leen ay cas perdu ngeen kenn mënu leen qualifier xamul fu fu leen di teg xoolal pare naa ci wax ma dambal ma dambal jaañ ma dambal jaañ yow moom baal naa la ndax yow moom wérulu yow moom su ma gisee sa kanam rek damay désolé. ndax sa kanam moom day merloo nit non mais bul wax dara dinaa la jëndal piqûre Michael Jackson bu ñu ko doon piqûre noonu comme ça nga xaw a leer tuuti ndax nit ñi mën laa gis ndax yow pour gis la dafa jafe pour pour gis la nii même ci télé bi bu ñu la tegoon ay faar ak lépp duñ la mën a gis donc sama gars tey fii laa koy dagg ba beneen yoon xam nga ba beneen yoon ñu ñu ñu génn waxtaan du noonu xam nga man moom tey sax yàgg naa ci. ci ci ci affaire yi donc ma leen di jaajëfal yéen ñëpp ma leen di jéggalu tamit ma leen ma leen di wax ngeen baal ma parce que yenn saa ma utiliser kàddu yoo xam ne ne waruma ko utiliser vraiment vraiment vraiment maa ngi jéggalu di leen fon yi ñëpp di leen wax ne nag partager leen da ngeen di xool da ngeen di seetaan rek ba pare du ngeen partager dee leen partager vidéo yi dee leen partager dinañu ñëw ci yu am importance. xam nga lu ma la wax thèmes yi nga xam ne tamit ñu sénégalais yi dañoo war a changer dañoo war a changer lu bëri si ñun donc après dinaa ñëw ci thèmes yooyu tey moom Françoise Hélène Gaye ak Macky rek ñoo ma indi woon xas leen tuuti ndax ñii moom dañ koo mérité dañoo nekk nit yi nga xam ne ne moom xam nga lu ñu amul rusukaay rusukaay daa dee ci ñoom éthique dañ koo jël suur ko ñoom ñoo tax ba éthique amatul sens donc ma leen di wax ba temps yi incha allah ma leen di fóon nit samay soppe partagé leen dinaa xool ñaata nit ñoo partagé ku si partagé ku nekk nag dinaa la xool su ko defee nag ma yónni la un coucou ca ciao. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.